téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat Fer. waaye seedeel ma ne du ma maslaa laa udaahinu foofu nag fit waa ngi noonu nag ak njàmbaar gi du ma du masa maslaa ak bokkaalekatu yàlla ak lu mu am am doole ku mën a doon du du kooku du ma masa maslaa ak moom ci àddina waxtu wi may def loolu maa ngi doon xarit ak soppe ci yàlla mi nga xam ne moo sama wàll ne ko yow géej gi nag ayaa baxru loolu gis nañ ne ñaari araf yi mu jëfandikoo ci woote bi ki koy def mooy ki nga xam ne ki ngay waxal da dafa nekk sawet dalaa jege muy hamza gi ak yaa gi mënoon na ne yaa baxaru rek wala sax a baxaru des na ko wax su ma doon woo naa ne ah cheikh wala ma ne yaa cheikh waaye boole agi ak yaa gi nag day wane ne kooku mi ngi ci wetam sës si moom mu jàkkaarloog moom te doot te ca te ca ma tarjumaani way dafa ne wa fi saaxili baxri tilka aljazirati waqaftu murtajila wa fi irtijaali maa naafaqtu maa axtaqtu wa maa naafaqtu tubaa du moom ci ci ci tefesu géejug dun booba muy Mayumba falaa taxawe di wax ak géej ga irtijaalan nag nekkul lu mu de da ko improviser rek dafa taxaw rek jàkkaarloo géej géej gi duusu wa sànni ay wàggam mu xool environnement bi labbe yaa ngi fii ñu ngi bokkaale yàlla église baa ngi fii nangam mu ko rek mu daal di way bay di irtijaalan waa juri wala li wala di wax juri xam daa ñëw noonu rek jore ko <laughs> waaw waaw di mu daal di mu daal di indi bayit yi nag seedeeloo ko nag ne ko man jaamu yàlla laa liggéeykatu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaye yow géej gi nag ayaa baxru waxid laa tusallis fa rabbuna taala an tasliisi akrim bihi rabba yow géej gi wéetaleel yàlla amal tawxiid bul toppandoo sa gaa yi la wër ndax suñu boroom man yow ak ñoom fa rabbu naa suñu boroom ñun ñëpp ëppante naaj ñu naan yàlla ñett la waaw si sax na moo koy fàttali bañ taxawee fee ci ay alxuraan boobu nga xam ne message su alxuraan lay jël di ko jàllale ci ay woyam laqad kafara allazina qaalu inna allaha beneen ba ci des wala taqulu salaasatun intahu xayrun lakum bu leen waxati mukk ne yàlla ñett la ah na jeex <laughs> yàlla ne jeex bu ma déggati ku naan yàlla ñett la xam nga loolu garaaw na ah. dem na ba ne wa in lam yantahu amma yaquluun la yamassanna alladina kafaru minhum adabun alim su ngeen arrêté wu li ngeen di wax ñi wedd ci yéen yàlla nañ leen bëggal bëggal mu metti sëñ Tuubaa ne yow géej gi nag yéenewu ma la bëggal mooma yéenewu ma ko sa gars yi moo tax ma leen di laaye biir ci xas dëgg lay sel biir googu sëñ bi doon junj ci ci fulku bi ba muy jeex ma nga naan waajahtukum bil xaqi daa nasiha man radda xaqan baa a bil fadih bil fadiha bi lay waxal de yéen laa jàkkaar lool di leen laay biir bëgg ngeen gëm yàlla wéetal ko su ngeen nangoo baax na su ngeen nanguwul na gàcc ngeen yóbbaale àll ci ci kanamu yàlla haadihi qasidatun biha jaadaltu ahlal kitaabi wa biha qaataltu xasidaa ngi nii goo xam ne ci laay dàgge santeeg ahlul kitaab muy ñoom ñi fi newoon te ci xasida gi laay xeex ak ñoom itam kon géej gi lay waxal fii ne ko bul bokkaale yàlla yàlla ëppante na ñu naan ñett la kon sa vague yii ngay sànni sax sànni ko ngir ragal yàlla rek yëngutul baj-bajil waaye bu ko def ngir bokkaale yàlla de fa kun za tirabin musbidan min maxaafatin min maxaafatillah ngir ragal yàlla waaye bu daal jeexal nag lam ko lam tàmbalee woon washad annani abdu sabba nga xam ne lu ko ñor la seedeel mën a jaamu bi yàlla la bu ko jox léppam te jeex ci moom kon kii mooy sëriñ bi fii la nekkoon tawxiid ji la yoroon fii ci maayum ba la ko yàlla wone ay ayibam la muy tuddee ayib moom ca moom moo ko xam yàlla wan na koy ayibam fii daal ba mu jàkkaarloog moom nee na mu laabal ma ci bama set def ma ma nekk abdullahi xa al xaalis jaamu bi yàlla kese sëñ blaat ne woon na ci ama wasasin la xëy wax ne mayetuma ko ma wooyee ahmadou bamba bis ni tey def naa sama bopp jaamu bi yàlla dong buy liggéeyal jaawam yàlla bu mag bi tax mu naan subhaanallazi asra bi abdihi laylan tax mu naan euh, ci beneen aaya ba fa awxa ila abdihi ma awxa muy sallallahu alayhi wa sallam kon fii la doone abdullahi ji xadimu rasulillahi xalilullahi xabibullahi xalilu rasulillahi xabibu rasulillahi xasida yooyu it bari fi la ko taalifi dinaa ci tudd rek yenn jaalibatul maraaxib ñëpp xam nañ ko sëñ Musaa Ka moo ñu ko nettali ne fii la ko taalifi sànni ko ci ndox mi di xool ba xam yàlla nangu na ko déet mu ngoog muy kon du idul xayraat ba mu demee ba naa ko ab sàndarma moo ko for bu tudd Moussa moo ko far jox mbër ma raaful deful dara moo xam ne kon nangu suñu borom nangul na ko ci biir xasida googu dana ci junj léeg-léeg ay armeel loolu sëñ sëñ Afi Ahmed Ñang moo ma ko nettali ne ci mag ci wax na sax mag moo ko nettali woon ne sëñ bi daa ko daan na ko firee ci ci bi daan ne yaa yaa ba ne yaa man xamaaniya rumus rumus jooju waaw nga xam ne mooy jam maanaam mooy jam rams gi tekki bàmmeel nee na sëñ mi ngi ci jublu woon bàmmeeli yéefar yi nekk ci géej gi aar gi ko yàlla aar ak sàmm gi ko sàmm téyal ko ruuxam ba bakkanam desul fii desul fii ci géej gi te am nañu daa wax naan sëñ Tuubaa daa ci géej gi dem nañ ba bind ko ci ab musée bu mag ba nekk ca Chicago Chicago waaw Field Museum man dem naa fa sëñ sëñ sëñ Mourtada dem maanaam soppi na voyage am waroon a jóge New York jëm ni jëm jëm Washington mu ne nañ soppi ba bi dem Chicago ndax dindi ji tuuma jooja ndax dañ daan siiwal ne sëñ Tuubaa daa des ci géej gi ñibbisi wut li ñibbisi kooyal jinne la xoola ji wax sëñ bi ñu bind ko ci musée boo xam ne musée international la soo ko doon visité yi mën nga faa def ñaari fan doo ko jeexal ci Chicago Cheikh Mourtala dem fa ñu dajale ña nga xam ne ñoo kilifa musée ba mooy dawaa damaa dégg ne dañoo bind fii ne tef te ñoom def nañ lu baax lañ def seen jëf ju baax ñoom ñoo ko def ñooñu maanaam ñoom ñoom waa musée ba xaw ma ki lañ jox information moom waaye ñoom dañoo dañoo dañoo xool ci Afrique réew moo xam ne kafa ne moo ëpp lu mu jariñ doomu aadama ñu ne kii nañ nañ ab liggéeyam ñu ne ñu xool ba gis Cheikh Ahmadou Bamba ñu jagleel ko benn parti bu am solo boo xam ne booy dugg ci parti bi da ngay gis day mel yaa ngi dugg Sénégal ndax dañ lay wan car rapide wan la avenue Senghor wan la nangam ak nangam bu ko defee nga daal di wéy dugg ci biir nag foofu nag fa ngay fekk xasida yeeg son beeg sonorisation bi jàng xasida ak xasida yi ci bind ak yëpp ñu def fa nag ne sëñ Tuubaa ñibbisiwul sëñ sëñ sëñ sëñ Murtala génne carte d'identité ne leen ki ngeen di wax ne si wut mooy sama wayjur man mii te ñëw na ba dem gànnaar ba dem Ceyeen ba ñëw njaareem ma soog a feeñ jamono sama carte d'identité ngi nii ñu ne ko yow koy Mbàkke boo ñu joxutoon benn preuve sax sa jëmm rek doy na sëkk tegtal ci ne loo ñu wax dëgg la ne ko waaye nag lii biñ ko fiy def mbooloo daje woon daje def ko fi danañ ko dindi nag ndax gëm nañ la waaye ba lañ ko dindi faaw mbooloo daje waat ñu waxtaan sa ko dindi ñu ah sañ-sañ wax kon daanañ siiwal ne Serigne Touba des na ci géej gi man mii Gabon gi Libreville am na benn Gabonais bu ma doon waxtaan benn bis mu ne ma yéen seen maam gi dégg naa mi ngi làmbar na ko wax dëgg <laughs> waxu dëgg waaw bañ demee ba loola féete boor ñu gé andiwaat beneen lënt noon yi ne sëñ Touba mi ngi njaareem ñu denc waaye dé nga nekku Touba wax nañ ko waaw ah? ah, sëñ bi day na waar te tubaab yi tubaab yi fekkee yëf ya ñoo bindal seen bopp dem yóbbu Touba geeg lépp ak ci aju mi ngi kon euh, yaa man xamaani rumuusi ci maraaxib bi mu taalife fii nee na mi ngi ci jublu aar gu ko yàlla aar ba seen armeel yi moom jegewu ko fenn ar rumuus ok waa jërëjëf déet dafa am lu seen maam Cerno mii sàkku woon wax ni bëgg buñ waxtaanee comme nii ba mu sori ñuy laaj sëñ Fallou ay laaj mu di ko tontu sëñ maam Thierno nag ñu ngi lay sant ñi nga àndal bi ñëwee sànq dañ ma ni sëñ bi de fee nu ko jëlee xam naa ni yaramam mayu ko ko xam naa lu mu gën a mën a tënk ko kàddu yi rek ñu mën koo yolomal ci seen yërmande ci yow waaye yow bi nga xasee ba toog bañ tàmbali ci sëriñ bi rek da ngaa daal di wér péng kon si fa amin ku daa nag mooy waxtaane sëñ Tuubaa léegi nag ci loolu nag question bi ci njëkk nee na moom moo koy laaj moom bismillah ah, ah, ah, daanaka contribution la maanaam ak bokk la ci waxtaan bi sëñ Fallou moom tubaarkàlla li wax moom kenn waru ci dolli dara eh, damaa gis eh, Moro Moro Pierre Moro waaw moom moom moo doon commandant bi fi nekkoon labbe bi labbe bi ci ci ñoom ay ay ay ay kii la ñu woon ay prêtre ak yooyu waaw loolu la damaa gis ci yoonu sëñ bi matadi daf ci am matadi ndax am nga ci kii dañu defe ne bi muy ñëw bi mu ñëwee ba Libreville bi ñu ko indi fii defe naa jot dañ ko yóbbu ba Congo ba matadi xëy na bato bi moo amoon doon a teer poste fii ci Mayumba xëy na ñu jàll ak moom ba ci port bu mag mm-hmm. ñu wàcce ko fa wuutal ko gaal gu ndaw eh, defe naa loolu Matadine la war a am la war a jóge mm-hmm. mu jóge Matadine doog a ñëw fii ñu ñu ñu war ko wàcc fii léegi loolu loolu ndax am nga ci <laughs> am nga ci ay ak leeral tuuti mm, archive bi sax moom laa nu xool nii pour yi ma ci am ci loo xam ne mënees na koo kii waaw sëñ bi eh, liñ ci xam daal mooy li nga jëkk wax la ñuy dëggal ne sëñ bi moom tudd na matadi moom moom tudd na ko tudd gi mu ko tudd itam daa mel ne ci ni ma sama jàngatu bopp mooy da koo ber maanaam boolewu ko ci état bi comme ni mu toftalee ay yesa bi euh, fi mu jaar ak fi mu ne man dama bëgg xam ne rek tuddug jaar la day mel tuddug jaar la comme lu mel ne kabla bisaa xam nga kabla bisaa tudd na ko waaye boo xoolee ay yesa ñëw ci xasida gi boo gisee sëñ Moustapha Seck xasida gi mu doon jànkiroo ci Montagne Sainte wax naa ko ba tàyyi ne ko nanga avant ñëwul la maayam ba nanga feeb ma am ko mooy dafa am lu ci feeñaat ci gëstu ci ni ni ci bi muy wàññu ko sëñ bi bi muy wàññu ko di di ñibbi euh, da cee da cee tuddaat kabla bisa toftale état bi mel ne dafa jóge ba jaar kabla bisa dem Galwa dem Libreville nag daal dellu loolu loolu itam beneen beneen gëstuwaat la beneen buntu gëstu la bu beeku ansaaniyam tidaahu nat bin xatidi jumlata ma laaqaytu naxwa matadi naxwa matadi kon tudd na matadi tagg rasulullahi moo ma mboolem la ma doon daj ba ma tolloog matadi <laughs> waaw ci Zaïr Zaïr la ne Zaïr gële Congo Congo waaw waaw mu nga soriwut waaw waaw waaw Congo Congo Belge maanaam Zaïr waaw noonu port la waaw waaw port bu mag moom kay sëñ bi daal waaye document bi. Hmm. bi dëgg la dëgg la hmm. waaw noonu la ma loolu ma loolu yenn na maanaa yenn na maanaa waaye li ma ci xam daal man mooy ne euh, euh, maanaam bi muy bi muy ñibbi bi muy ñibbi loolu archive baa ngi fii moom bi muy ñibbi di jógee na jaar Cap Lopez pour dem euh, dem li ma wax sànq damaa bëggoon wax ne bi muy bi muy dem Lambarna laa bëgg bi may wax ci té ci xasida googu mooy bi mu jógee maayam bu jëm làmbar na jaar na kablo pees loolu feeñ na ci ah, xasida gi xasida gi nag maa ngi ko doon wutloo si Moussa Seck moo mi gi mu tënk avance bi laay ministre en régime waaw gàtt la hmm? waaw bokk la boobu sax waaye bari <laughs> ah, moom la hmm. ah sëñ Moussa la ah, waaw wa fii kabla bisa lil muntaxa wajjatu fii kabla bisa ma qad kafaaniya hadduwan hu bisa ila nabi wajjatu moo ko njëkk ila nabi wajjatu henda baafali qablu bima bihi anaara ma fali lil muntaxa wajjatu fii kabla bisa ma qad kafaaniya hadduwan hu bisa saqaala saytaani henda galwa kawni xadiima man kafaanil balwa yusuuqu sarmadan li xayri duran wala ilaha illa waaw jërëjëf sëñ Moussa loolu la ñu soxla woon waaw nee na beneen bi da ngaa tudd xasida rabbana axrajna bi mu ko mag daf ma masa wax ni ma. wax ni ma. bi mu ko taalifee ba noppi. bi mu ko taalifee ba noppi. waaw fekk na dafa am booba commandant bu ko sonal lool. booba daa fekk mu am commandant bu ko sonal lool. naka mu ko taalif. naka mu ko taalif. diir bu gàtt. diir bu gàtt. ñu jot benn dépêche. ñu jot benn dépêche. muy wax ni moom dañ koy tuxal yóbbu ko feneen. muy wax ni moom dañ koy tuxal yóbbu ko feneen. sëñ bi daal di wax ne. nee sëñ bi daal di wax ni. naaru góor bu ñu koy yeew bis a tax. naaru góor bu ñu koy yeew rek bis a tax. ba muy taalif xasida gi loolu la loolu la fasaale. ba muy taalifa xasida nee na la te fasaale woon. naaru góor boo koy yeew bis a tax. mu ne naaru góor boo koy yeew bis a tax. mu taalif xasida gi. nee na mu taalif fa xasida gi. ba xasida gi noppee. nee na ba xasida gi noppee. kookee taxoon mu di ko taalif. kookee taxoon mu di ko taalif. moom ñu far ko fa jëlee. nee na moom ñu far ko fa jëlee. nee na ci lu jege yoo. nee na benn bi nee da ngaa wax ni am na bis muy togg lu mel ni ndawal muy togg lu mel ni ndawal am lu ne toog sama xel am lu toog am lu ne toog toog ci sama xel te mooy Omar Ba te mooy Omar Ba téereem boobu mu bind ci sëñ Touba téereem boobu mu bind ci sëñ Touba dafa am lu mu nettali dafa am lu mu nettali wax ni sëriñ bi wax ni sëriñ bi ñam yi ko cuisinier bi ko daan toggal. nee ñam yi nga xam ni moom la ko cuisinier bi daan toggal. da ci daawul laal dara. sëñ bi daawu ci laal dara. ba cuisinier bi xaw a jàq. nee naan ba cuisinier bi sax da cee xaw a jaaxle. ba defe ni danañ ko dàq. ba defe ni danañ ko dàq. ndax xëy na togg gee baaxul. ndax xëy na togg gee baaxul. mbaa da koy toggal lu mu bëggul. mu dégg nag ñu ne euh, nee na mu dégg ñu ne fruits yi meññet mi. baax na ci nit nee na mu am lum ci sàkk loolee nag banaana bokk na ci nee na ñu boole waale ko ci ñam wi andil ko sëñ Touba nee sëriñ bi gis ni nag nee na cuisinier bi gis ni coppat na ci banaana bi daal di koy seex loolu taxoon na saa suy indeeti aw ñam. saa suy indeeti aw ñam. dana ci boole aslëf ci banaana. ci banaana. waaye banaana boobee sëñ bi laaloon. waaye banaana boobee sëñ bi laaloon. mu gis ne sëñ bi ko ay bis di jëfandiku. mu ne mu gis ni sëñ bi téye na benn banaana bi ay bis di ci jëfandiku. ay bis di na ay bis di ci jëfandiku te jeexul. <laughs> loolu ci na loolu ci sunnaal gi nga xam ne mi ngi koy sunnaal. nee te nga tudd ko léegi. moo ci sama xel. moo ci indi sama xel. nee na waaye xam xam nga ni banaana boo ko joxee mbusoo be yii nee na defe naa moom du ñu bisi <laughs> benn bi da ngaa wax binaa nee mu mel ni mooy liggéey bi yëpp nee sëñ Muntaxa dama ko mas a laaj nee na yàgg na sax tuuti nee na maa ngi ragal loolu jege na ñaar fukki at ma ko luy ma ne ko Mbàkke lan mooy fulkul masxuun mu man jàpp naa ne mooy liggéey sëñ bi yëpp mu man jàpp naa ne mooy liggéey sëñ bi yëpp ne ko liggéey bi sëñ bi liggéey lépp rek mooy ànd rek mooy fulku masxuun mu ne man sëñ Muntaxa ne man moom laa jàpp ni moom la <laughs> nee na yaa xayra raafixun gi nga jàng léegi قلوب المكة وخير قادر أسيرا فكا افك xam nga ni loolu itam dafa mel ni booba sax dafa mel ni booba sax ñàkkul nit ñi ñëw di ko tawat ci kooku ñàkkul ñi ñëw di ko tawate ci kooku nee na di kooku ngay wax ci la taalife ñaari bayit yooyu waaye defe naa ni fa saasa gis nañ ci buntu nee na ca saasa ci lu yàggul dara nee na xasida yi nga doon wax nga xam ne day xasida jaar yi nee na xasida yi geer ah, ah jihaad yi daa am ku ma ko mas di nettali naan ko dafa gis sax nee ma yor ko bu ma gisee dafa dégg ma tudd ko mu ne ma loolu ak xasida dama ma ne sëñ bi da koo da koo tuddee da koo da bi ñam xam naa dogalub suñu boobu waaye kon tubaab yëpp ay dee waaye mooy li <laughs> te kat booba la ko mas a dégg keroog keroog la mas a dégg xasida ci man la gis ma yor ko nga xam ne kon ah, mu du itam suñu borom suñu borom def na ci ñoom loo xam ne itam lu rëy rëy rëy du débat dama doon ah, compte dama doon compte waaye yow waaye yow say wax moom ah. eh, dis ci débat ah, xam nañu sa gëstu am nañu sa njàmbaar xam nañu sa góorgóorlu waaye yooyu nag ay yëf la yoo xam ne yu ma yu ma dund yu ma dund la rek waaw <laughs> ma ne woon ma ma baaxee leen ko waaw <laughs> eh, dama ko dund rek yaa koy baax jërëjëf jërëjëf sant salaamaaleykum léegi man moom xam naa laaj bi may laaj moom boo yeggalee li ngay li ngay bëgg a indi mooy ba xam sëriñ bi bi mu fiy jóge di dem moom moo ñaan d'appel ngir ñu jëlee ko fi wala tubaab bi moom moo dem ba gis ni ak demam jot na. Ah, ah, laaj boobu solo la waaye jërëjëf sëñ bi wax dëgg yàlla de li nga wax moom tegaat ci dara sax nag dana tiis lool waaye euh, euh, li doon wax sànq ci ci archive bi ma doon xool ci wàllu matadi gi ci am loo xam ne mënees na ko tudd mooy bi muy ñibbi bi muy dem Sénégal moom lii fi ne archive Congo la moo lii waaw waaw mooy Brazzaville rek maanaam ville de Maceo bi nga xam ne moo ko yóbbu bi muy dem Sénégal euh, dañu wax ne gaal gi dañu bind fii ndax li manifeste bateau ah, bi la ak fi mu jaar mooy li ñuy wax mouvement maritime bi Euh, gaal gi mi ngi jógee maanaam mi ngi jógee Matadi bi mu jógee Matadi dafa jaar Cap Lopez Cap Lopez xam moom itam Carrefour la woon wax ne gaal yi gaal yi dañu fa daan taxaw bi mu ñëwee bi mu ñëwee nag ba jub Libreville nag ci document bi dafa mel ne lu am jafe-jafe xëy jafe-jafe ci gaal wala jafe-jafe ci ndox mi yëpp mën na ci am ba tax na mu am fa ab diir lu jiitu sëñ bi jógee Lambarana jaar si kabla pees googu dim ñëw ci xasida googu yi xasida gi sëñ bi doon jàng léegi moom noonu la ko loolu ci ci bi muy ñibbi la ñibbi bi xasida gii ma sëñ Xaasim jox moom bi moom bi muy ñëw la bi muy ñëw waaw dafa mel dafa tëjee waaye moom boo xoolee moom itam da ngay gis moom maanaam kabla pees bi tudd na ko ci kabla bi saa waaye mi ngi ko tuddee diggante Libreville ji ak euh, ak ak Bafali ji ak Bafali nga xam ne kon ba tey wér na ne jaar na fa jàpp na jaar na fa ay yoon sax waaye yii moom tudd na ko moom ci lu leer te ñaari xasida yi dañuy mottalante kon kon matari ji moom gaal gi ko jëlee Séné euh, kii euh, Libreville yóbbu ko Sénégal bi muy bi muy ñëw moom mi ngi mi ngi jóge matadi ñëw Cap Lopez ñëw Libreville le 30 octobre 1800 1902 la fa déparé wuti wuti wuti wuti Sénégal waaw waaw mooy mooy mooy bay bayitu kii bi waaw matadi am na ci waaw waaw gis nga bay di waaw waaw bay di na nafaani naafion fii liber wali bi maa bi yii yaxbituni kullu wali lu mu ci teg ilan nabi wajjahtu inda baafali muy maayom ba qabla bi maa ma anaara mahfali lil muntaqa wajjahtu fii qabla bi saa waaw maa xat kafaani aduwan xabisa chaqa ala cheytaani inda galwaa mooy kon la lambar na kon day mel ne dafa jógee dafa jógee maayom ba jaar bi muy dem lambar na jaar kablo pes soog a jëw la soog a ñëw lambar na ay ay bat bata la fay demee ndox la waaw ndox la hmm. benn waaw jërëjëf waaw waaw ngoog ngoog ki waaw lii doon laaj doon laaj moom ñaari ñaari dat yi daal loolu xam naa ne laaj bu xaw a naqaree tontu la ndax gëstu yi dañ cee nekk jamono yëpp ay bokk ci waaye daal li jënti daal xëy na am na luñ mën a luñ fuñ mën a sukkandiku ci waxi sëñ bi Lamin Jóob Dagana mooy diggante rabiu safar ak saamin a safar dafa am ñaari mbind wala wala loo xam ne mbind la ak loo xam ne euh, wax la nettali la donte sax am na sax bind bayit ndax xarajtu yowma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fii chahri safar loolu dafa ñëw ci ci ci gisaaw sakoor sëñ Musaa Ka eh, foofu it gëstukat yi ñu ci bari dañoo wax ne eh, waxi sëñ Musaa la waxuma nag mooma dama ne gëstukat yi ñu bari ci yoon am na ñu wax ne waxi sëñ Musaa la waaye sëñ bi ci gisaaw sakoor la atuf bi bi muy bind di nett li dem gi raabi a safar la andi foofu sax du way da koo da koo wesar mooy xarat yoma sabti rabia safar daal di wax ama jay sasin mina daari lati banaytuha fii fi ardu jolof nangam nangam daal di continuer daal di wéy nett nett ba àgg ci ne euh, wa fi asiyati dalika al yawmi mu yowmu rabia safar ja loolu moo ci xaw waaw loolu moo ci xaw a indi jaaxle ci ñenn ñi kuy gëstu di xool waxeenu sëñ bi te sëñ ak ni muy tànne ay baatam arab bi yëpp da koy tànn di tudd baat yi fa ko war a tudde bu ci jur ci ñeenti fan ki safar laa génn bisub gaawu atum jey sasin di nettali di nettali di nettali ba mu yàgg mu ne ca ngoonuk bis booba kon mooy bisub rabi'a safar ba tey ca laa dajeeg ca ca laa ca laa dajeeg waa ji lekk-lekk ba wax léegi ca jeewal <laughs> seetlu nga ko bu baax waaw waaw xam nga loolu ba pare ñu jàngaat weneen bayit wii xaratu yawma sabti saamina achar ba noppi ñuy màggal jëf ji moom mooy màggal saamina achar waaw nga <laughs> wax naa waaw ca gàtt baak ah, waaw waaw dam nga waxee lépp sëñ suñu asar déet moom koy nettali yëpp moom saamina asar la sëñ Fallou it saamina asar la woote léegi nag foofu nag fa la yëf yi dëppale bi nag dañ ne sëñ Mat Lamin sëñ Mat Lamin ñu daga na loolu bind ko waaye dañu wax ne da koo nettali sëñ Afi Ñaŋ mi may wax nii biñ ci waxtaan ñu di ci xóotal dane moom dégg na ci sëñ defe naa sëñ sëñ Moussa bu ma juumut sëñ Moussa jëlee ci sëñ ci ci bàyyi sëñ jatara menn mu jëlee ci sëñ Mad Lamin loolu nag li gaa wax ci xadis maanaam xëy na mawquuf wala xëy na marfon <laughs> ci xadis ndax sëñ Mad dafa jëlee ci sëñ bi directement wala déet tudd ko moom waaye waaye sëñ Mad Lamin moom ko na xam ne diggam ak sëñ bi moom di ko dégg sëñ bi wa waaw waxtaan nañ lu bari néewul sëñ bi nee na waaye sëñ Mad Lamin dafa safar ji ak saamina asar ji mënees na leen boole ni leen di boolee mooy rabia safar ji wàccaay wi la ak yéene ji dogu gi waaw waaw waaw ba mu ba bëggee jóg ah te ca ñoom seenu dogu mooy seen jëf maanaam seen jëf dañu koy àtte ci dogu gi rek ulaas waaw yonent yi nga xam ne ñu ëpp pasteef ci ci yi nekk juróom fasbir kama sabar ulaas bi lañ fa xaata bante bàmbaay mbër mi waaw ah, sayyidna Muhammad waaw léegi nag nee na loolu mooy kon moo tax moom ba muy bind itam bindut saamina asarja donte saamina asta ji la génn moom génn gi moom kenn amul sikki sàkk ndax ci archive yi nasaraan yi itam da ngay gis ne soo jëloon tey saamina asar jay sasin nga taxawil ko ci taarix ci jumtukaayu xarala yi 10 août la lay jox 10 août moom ala kulli xaal moo tolloog saamina asar moom doon gaaw samedi kon rabian safar ji noonu dong nga ko mën a tawile moom man koo dégg mooy ne dogu ga ak yéene je waaw waaw safar hmm. xëy gi nag jëmmi génn gi nag doon saabi na asar ji waaw loolu daal loolu la seen seen seen Moussa dara bu hmm. ngeen amee ñeenti fan ci safar hmm. na ñëpp jógwaat lil safar ngir Bamba raabi ka safar la waajee Ahmadul Makki dégg nga waaw sëñ Moussa it <laughs> yëf yi nag kii ndax sëñ Moussa am na ci way yoo xam ne waxee na ca noo xam ne loolu moom wax dëgg yàlla du ma andi sax way nga ndax mën naa andi kii waaye waaye daal wax na ci tudd raabi a safar jooju wane ne am na lu ci am waaye daal man li sëñ ma li nga ba mujj wax léegi waxi sëñ Moussa ak waxi sëñ Madi Lamin gi nañ ko jàpp ñun rek nañ dañ tey loolu daal tey tey tey màggal Saamina Asar <laughs> waaw waaw hmm. waaw sëñ la waaw mu bu dee si laaj bi nag moom waaw mag ñi it loolu lañ loolu la ñuy def waaw beneen bi mooy li nga wax léegi ci ñibbi gi <laughs> waaw waaw li ma xam ne mooy sëñ bi moom du sëñ bi moom mooy bind di ñaan di di ñaan di ñaan jéggal moom loolu du ko def mën nañ ko ko defal nag ndax gis nañ ci archive yi ñuy wax ne euh, tubaab bi maanaam kii bi ko yóbbu notification bi ko jëlee Gabon yóbbu ko ñuy wax ne waa ji bi muy ko commissaire général bi newoon fii bi muy rendre compte gouverneur général daf ko ne comme ni ma comme ni nga ko sàkkoo woon ci sa correspondant dat ci sa lettre dat sàngam ngir Ahmadou Bamba danañ ko defe noonu waajal nañ ko mi ngi làmbara na dat sàngam bu accès nañ ko dugal ci gaal sàngam mu andi ko wax nañ loola am ñu tuddaale ñeneen ñoo xam ne war nañoo dem waaye du sëñ bi moom moo sàkku ne de ne damay damay damay dem hmm. waaw waaw ku ne doon ci waxi ci waxi mag ñi bu ñu diggee suñu keppaar suñu keppaar dañuy waxee léegi <laughs> eh, ñaari ngi woon Sénégal ñoo xam ne dox nañ ci jéego yu bare bare bare ngir sëñ bi mën a dellu si waat Sénégal di naxanteeg tubaab bi ak sax di leen jox ay neexal maam si ànd def na ko Cheikh Ibrahima def na ko maam si ànd na ko Cheikh Ibrahima kenn ku ci nekk wax nga ak tubaab bi gouverneur général bi nekk Ndar ak ka nekk Ndakaar wax nga ak moom ci loolu ba seen i neexal jot naa ci ñoom ngir sëñ bi dellu si ah, Cheikh Ibrahima daana dem ci ñoom leen wax ne leen kooku da ngeen ko xamul rek waaye bu ngeen ko xamoon da ngeen du ngeen du ngeen du ngeen du ngeen du ngeen seqe moom lii ngeen ay teranga yu bari di ko yóbbu ci kër gouverneur ak kër commandant daana waxtaan ak ñoom lu bare bari ci mbirum sëñ bi euh, maam si ante it dem na ndar yoon woo xam ne looloo ko yëkkati woon ngir mu waxtaan ak ñoom naxante ñoom ndax xam nañ ne tubaab yi bëgg nañ xaalis te lii xew ci jamono yi yàgg na fi daan nañ naxante ñoom lu bare bare bari seen xol dellu si seen xol giif eh, ñi nga xam ndax xam nga tubaab moom ku dem dem nga bind nga la ngay bind bàyyi fi waaye ki fi nekk itam nag boo naayanteeg moom bu la signee la it mën naa sotti ñu demee noonu daal loolu itam am na ci bay lépp woyof daal dogal mën mën a dellu si waaye saw bi dëgg dëgg daal moom saw diggante suñu borom la ak sëriñ mu liggéey mat na dellu si waaye ñu saay seen ci doxee jéego yu bari yoo am solo yoo xam ne jéego yi laabiré la ak jéego yi di laabiré sax tubaab bi Euh, so soxna Batoor day laaj ni mag ñi yaakaaroon sëriñ bi te newoon ci réew mi newoon ci réew ma senegal ñaata leen xam ci ñu ko fekk fii ci dëkk bi. waaw doo fekk sax boobu maa ngi xool ci yi ñu jotoon yónnee fan yi ay nit ay turin jëmm sénégalais waaw waaw sëñ bi kay tubaarkal ay sénégalais yoo xam ne bokkoon nañu ak sëñ bi nekk nekk fii ñenn ñi doonoon ay ay ay ay ay déporté ñun ñu fi indi woon am na ñoo xam ne fi lañ faatoo am na ñoo xam ne mujj nañ ñibbi ci ci ci seen ñaanu njekk ak njéggal ba ñu yóbbu leen waaw loolu am na am na ci ay tur ku ñu wax Omar Diaw wax nañ ne mi ngi faatoo Libreville le 27 le 27 octobre 1895 kon fekkente na ak sëñ bi ndax sëñ bi le deux le deux octobre la agsi Libreville loolu moom mi ngi ci mi ngi fekk nañ fa tuuti kooku moom Sénégal la te foofu la faatoo am na ku ñu wax waa ci ci archive waa gaam lañ bind waa gaam m waa gaam coy waaye mën na doon waa gaam waa gaam sax laa gën a jàpp waaye ñoom waa gaam lañ bind moom mi ngi faatoo Libreville googu le 10 novembre 1895 kon moom itam fekk na dafa ak sëñ bi euh, fii ci ba am na ku ñu wax Ali Boubacar ak Mamadou Abdoul ay sénégalais lañ ñoom dañoo mujj ñibbi ñoom waaye ñoom lu mu néew néew néew fekk na Cheikhul Khadim donte weer la fii ci Mayumba ndax ñoom ñu ngi ñibbi ci ci mois d' avril 1896 kon fekk nañ ko ndax mois de mars la waaw ñu moom xam nañ ko ci ay sénégalais donte am na ñeneen am na ñoo xam ne ñu ngi leen yóbbu woon jole kom ku ci mel ne ku ci wax Ñoxor Mbay Diouf waaw mi ngi mi ngi mi ngi woon doole en 1896 am na ku ñuy wax Mamadou Alpha moom itam mi ngi mi ngi nekkoon déporté politique moom fii fii fii ñuy wax sete Kama fala falañ fa lañ ko fa lañ ko yóbbuwoon ñooñu ñan la bu dee nag euh, ñi nga xam ne ñoom la soxna si laaj ci ñi fekkoon sëriñ bi fii moom euh, ci njaboot gi ak ci taalibe yi moom euh, ñi ma ci xam bu weesoo ñi daan liggéey ci gaal yi ku mel ne sëñ Abdoulahi Ndour moomu nga xam ne Cheikh Ibra daan ko yabal lu bari muy ñëw di andi ay ay addiya ak euh, xéewal yi mu daan defaral sëñ bi bi ñu demee ba xam fi sëñ bi nekk mu ko mu ko daan andil sëñ Abdoulahi Ndour ak ñooñu sëñ Musaay tudd ci Musaa Sekor waaye sëñ loo Dagana sëñ Mëdloo Dagana moom leer na ne moom fekk na sëñ bi lambar na ci mujj gi la am na ci wax maayam waaye lambar na yaakaar na moo gën a kii moo maam Seex Euh, ndax ndax moom ci mujj gi la yaakaar naa ci mujj gi la war a doon sëñ Modou Lo bi bi ndax ndax fii dafa sori woon maayam dafa naqari woon a ñëw lool enclave ba nga xam ne ñëwoon fi yombut wax dama jàpp ne làmbaran lay doon waaw te bi mu ñëwee ba war a dellu ba sëñ bi jox ko mu dellu la wax mu dem wooyi borom gaawaan ngir mu ñëw te borom gaawaan itam li tax nga nga nga mën a jàpp ne ci mujj gi la mooy bi mu ñëwee fekk na sëñ bi di waaj ba téere yi mu jotoon a mujj taalif moom la ko jox ne ko na ko yóbbaale bi mu demee moo ko njëkk a móol mu njëkk a móol ay sëriñ bi euh, sëñ Ahmadou Ndiaye Diop bi mu àndaloon ba léegi boo demee Daaru Salaam dañ lay won maanaam plan néeg sëñ bi bi mu defoon làmbar na plan bi fi sëñ bi nekkoon da ko da ko da koo natt xam ni mu toll yëpp mu daal di koy rëdd ci kayit ah, ah. ah. Mhm. waaw mu ngoog waaw mu ngoog man moom man ma gis naa wan nañ ma plan bi waaye eh, nga xam ne daal kon li ma bëgg wax rek mooy maam Cheikh Anta moom ñëw na fa ànd ak ànd ak eh, sëñ ci ci ñu ci taalibe yi ak bokk yi ku jógee bi eh, Gabon ci mujj a xëy nee moom nee na naan gu yokk mar la nee na loo naan naan nee na loolu du tee mar nee na doyalunu nee na te sëñ Fallu moom doyalul nee na biig ñu bari daanaka dañoo guddee ñëw nee nopp bu baax xëyoon tamit doon dañ kumpa barab bi ci ay siyaar nee te war a xëyaat suba itam xëy mi lu mu mën a teel rek moo gën nee na kon mën nañoo yem foofu rek nee li ci des moom ñu deflu rek xam ni sëñ bi moom boo yéenee benn rek sëriñ bi fay la fukk mbaa lu ko soob sax ñu dal foofu nee na kon ñu te ñaan yàlla yàlla defal ñu liggéey bii muy liggéey bu sax dàkk gën yokk bu baax a baax niñ ko yéene ak niñ ko yaakaar yépp yàlla defal ñu ci ay njéggal defal ñu ci ay yërmande defal ñu ci sax ci ngërëmal seen tubaa nee ñu am ko ci nee na ndax sopp seen tubaa rek moo tax ñu di ko def kon ñi sant ñëpp di gërëm ñëpp nee di dax di baalu nee na ñaanal sulu kilifa ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ni nga ñaan sànq yàlla def ci kéemaan ci ak dundam ak wéram ak fanam ak léppam rek ak yéene bi mu am ci liggéey sëñ bi yàlla mottali ko ñun ñëpp ñu ànd ko ak moom nag taalibe yi Pastef bi nga xam ne moom la xemmeem ci ci taalibe yi te nattablewul ne bi Sëriñ Tuubaa bëgg taalibe ni mooy Pastef bi Sëriñ Tuubaa bëgg taalibe yi mel noonu yàlla na nu ko yàlla defal ci barkepp Sëriñ Tuubaa ñu dellu ànd ak ngërëm ak cant yërmandeeg njéggal ngërëmal sëñ Touba jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah kon léegi bu sëriñ bi ñaanee ñu yolomal kilifa yi bu ko defee jànketu xasida yi nu ànd ak ñoom ñu yeggale li des ci guddi gi bismillah amin amin Mbàkke amin Mbàkke amin amin amin amin